jërë ngeen jëf président Macky Sall fa ñu ko bëggoon a muuraakee mu rëcc fo la bëgg a dellu tey mu di ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru l'observateur nañu du yomb de ubbil yéenekaay bi tey jii ci ngoon jiit réew mi Macky Sall ma nga jëm ci université bu Ndakaaru ngir daloo fa ay pavillon yu yees ñu fa doon tabax waaye la mu fa dund keroog ba mu fay mujj fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2015 tax na yéenekaay bi gis ne dellu ga mu fa bëgg a delluwaat risque la ne ba mu fay mujj étudiants yi dañ ko naroon a defal affaire doon ko yuuxoo ko sànni xeer boole ceekit mbirum fallu seen di étudiant bi ñu fitaloon mu faatu ca ndar mbir mi jugegul ba léegi ci xolu étudiants yi loolee nag moo nar a ñëw yokk ci xar mi karaw réew mi quotidien ñu njiitu réew mi jëm tey ci université Cheikh Anta Diop bu defaru tax na kilifay réew mi ku ci toogoon cib neen du toj anki dina kay nañu moo taxit takk der yeeg alkaati yi dem nañu jiitalu ji ñoo ngi ne jasar ci université ba fees fa dell ngir bañ dara bett leen ci biir étudiants yi am na ca ñu ne na président Macky Sall ñëw ak jàmm ñoo ngi koy teeru bu baax a baax am ñeneen ñu ne Macky Sall wutu fa dara anki dina kay nañu la mu fay wuti tey ji moo di inauguré fa juróom-benni pavillon yu ñu fa doon tabax ba mu sotti di pavillon yoo xam ne nee nañu lu mu gàtt gàtt ñeenti junniy lal xaj na ci ak demam moom Macky Sall ci étudiants yi enquête it gis ne lu nekk xaj na ci Macky Sall ci terrain miine la jëm Le Quotidien ne ko déminé nañ ko ndax moom président Macky Sall jéego yu rëy yi mu def ci njàngale mu kawe mi ak it misir yu bari yi mu jël ngir étudiant réew mi mën a jàng ci condition yu baax moo tax journal bi jàpp ne Macky ma nga jëm ca pavillon bu calme li mu defal étudiant yi ku ko gërëmul doo ko xarab la Sénégal nañu njiital kudd di Cheikh Omar Anne mi ngi dalal xel yi nee na président Macky Sall dana ñëw ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ci jàmm def fa lam fay def ci jàmm delluwaat ci jàmm njàng ak mu am ci jàmm ak moom la président Macky Sall bëgg Sud Quotidien moo ko bind yéenekaay bi nañu njiitu réew mi Macky Sall sant na gouvernement bi ñu xaar seen tànk tubéy ci école bi ubbi ci jàmm ak salaam élèves yi dem jàngi ci jàmm ak salaam njàng meeg njàngale mi bañ a am benn jalt-jalti mu di lool mi ngi ko wax démb ci ndajam conseil des ministres ma président Macky Sall nee na bëggul benn coow ci njàngum ren mi atum ren mi parti démocratique Sénégal bari coow ak yëngu-yëngu bi ci mujj mi ngi ci vox populi maître Madické Niang jugee na ci Abdoulaye Wade nii la ko journal bi bindee maître na dogalu présenté wu ci élection yi doon candidat alternative bu parti démocratique Sénégal ndax nee na xalaatul ay élection di am ci réew mi parti démocratique Sénégal di ko wuute wala boog ñuy toog di seetaan parti bi mu yàqu ndax PDS patrimoine national la l'observateur nañu moom maître Madické Niang ab communiqué la génne démb di ca wax la ko yóbbu woon ca dowaa ci Abdoulaye Wade ak la mu waxtaane ak moom mu ne dogal bi mu jël ngir doon candidat yëgal na ko Abdoulaye Wade bind na ko ab leetar keroog njariñal parti bi la koy defal moo xam ñi fi nekk ba léegi moo xam ñi fi jóge Les Échos nañu maître Madické Niang soobu na ma nga ca géew ba nee na ci fan yi di ñëw dina biiral candidature am ba àdduna bi yëpp yëg Abdoulaye Wade ba mu yëgee loole libération nañu danee na waa PDS daje dàqe ma Madické Niang ci parti bi Vox Populi nañu yamu ca dem na it ba naan maître Madické Niang ndombal tànk député la mu amee ci assemblée nationale PDS moo ko moom na leen ko delloo kër maître Madické Niang gi faral di dal ci fan résidence it gedd na ko nee na dootu fa duggati Omar Wat bu génnul du baax wax li tax su am mi ngi ñu koy wax bokk na ci li ko war a faj ci hôpital bu fan mu di scanner bak respirateur ba dañoo paan ñoo ngi dégg it ne waa ambassade bu France ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir sauver waa ji di Omar Watt El Hadji Assane moo nekk ci xët mu njëkkal observateur gannaaw ba ñu ko falee directeur bu rajo Futur Média di RFM ay kàddum yu njëkk mi ngi ci l'observateur nee na waxi groupe Futur Média dafay dellu gannaaw ndax ñi fi jugee wax joojee jaruta jëme kaw gàcce la sax ci ñu di ko wax am na ñu fi jugee ñeneen dina ñëwaat dina indi yeneen i yeneen yenn journaliste yoo xam ne ndaanaan la ñu ci li ñuy def coon balaago sekk li ñu ko def démb rëy na yëral la Sénégal Vox Populi Les Échos wala Source A las nee nañu ay bori luyaas yu mu amee ca boîte bii di penc mi moo waraloon démb waa police fajaro ko génnee bagaasam yowoon ca penc mi sànni ko ci penc mi Vox Populi nañu ab huissier de justice moo génnee bagaas yi coon sekk yowoon ca penc mi coon sekk nag nee na dafay porter plainte ndax li ñu koy toppee dara amu ci ki moom penc mi moo ko bëgg génnee ndax dafa bëgg a jël penc mi jox ko tubaab bi ñu def fa ab Auchan